loolu ci képp njëriñ ci ñoom yaa gën fa yàlla. kon li ñu ci yàlla njaboot ak yàlla lañu képp képp njëriñ ci ñoom yow sa gën fa yàlla. moom nag moom la yàlla bindal ci yaram mboolem lu yàlla bind. kooku nag la yàlla bind ngir yaram mboolem lu yàlla bind. moom la yàlla bindal ci diwal képp ku bëgg a jub. kooku la yàlla bind ngir diwal képp koo xam ne bëgg ngaa jub. fàttaliku ko bëgg ci moom. ñu fàttaliku ko nag bëgg ci moom it. wane suñu bëgg ci moom. wane suñu bëgg ci moom. ñuy jàng taggam yi. ñuy jàng nag taggam yooyu. ñuy julli ci moom. ñuy julli ci moom it. ñu ngi tudd turam ne. ñu ngi tudd turam ne. te ñu tuddee saalihiina. te képp ku ñu tuddee saalihiina yi. barke dana ca wàcc barke dana fa wàcc. barke dana wàcc foofa ñu tuddee saalihiina yi. ñu ngi ko wax sallallahu alayhi wa sallam. loolu képp ñu ngi tudd mboo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. bu fekkee saalihiina rek ci ngeen di tuddee. bu fekkee ne saalihiina rek fu ñu koy tuddee. barke dana fa wàcc. dana nekk foofa ñu koy tuddee. naka bu ñuy tuddee yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon nag loo xam ne fa ñuy tuddee yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ki nga xam ne saalihiina yëpp moo leen defar sax ñuy saalihiina. ki nga xam ne saalihiina yëpp. moo leen defar ban bés doog a mën a nekk saalihiina bu taxutoon ak moom saalihu du am bu taxutoon ak kooku saalihu du mën a xam yéen ñëpp moo leen yéenal kooku yéen ñëpp moo leen yéenal bu taxutoon ak moom bindeef yëpp dañu yàqu bu taxutoon ak moom bindeef yëpp danañ yàqu wala bindeef yëpp sax duñu am yàlla sax mbindeef yépp duñu xam yàlla na nekk su taxu sonal yow duma bind dara yàlla wax na ko ñu xàqal ne ko wallaahi ku taxu sonal yow duma bind dara kooku bon kon nag kooku ñu fàttaliku ko ñu fàttaliku ko ñu tudd ko ñu ngi ko tudd danañu diggal yermaane danañu diggal yi waat na waalaata loolu danañu digg yermaane danañu digg ñu àddina ak ñu alaatira dana saxal cofeelam ci suñu xol dana saxal cofeelam ci suñu xol تسهل من دون تفاعل مع الاخره. والتفاعل من النبي السماء الله عليه وسلم دون التفاعل حتى لا تفاعل كم تفاوت كبار المتفاعل ما يكتب بالتفاعل. كم تفاوت كبار المتفاعل مما يكتب بالتفاعل. كتب بالتفاعل بلا تفاعل. كيف كتب بالتفاعل بلا تفاعل؟ نحن نجمع عندك كم بدي. نحن نجمع عندك كم بدي. yonent bi wax na loolu sallallahu alayhi wa sallam kon bëgg yonent bi doy na maqaama bu kawe kon kon bëgg yonent bi doy na maqaama bu kawe doy na fàggutee ci jaam doy na fàggutee ci ci jaam ci doy na taxe àdduna alaxira doy na teral àdduna ak bu alaxira yi tam lii ñu lii ñuy jëf lii ñuy jëf nag mën naa saxal taxal ak yonent ci xol mën naa saxal taxal ak yonent bi ci xol ñu jàng itam ñu jàng itam jikkoom jikkoom ak liggéeyam. ak liggéeyam. li nga xam ne daf koo dëkkewoon daay man. li nga xam ne daf koo dëkkewoon daay man. pour soxaloo bindee fi. pour soxaloo bindee fi yàlla yi rek. pour indi jàmm ci àdduna bi. pour indi jàmm ci àdduna bi ni nag. pour sant njub ak maandu ci àdduna. pour sant njub ak maandu ci àdduna bi ni nag. pour sant wareef. pour sant ak ngor. ak mbokk. ak ak bokk. ak xemoo képp. ak ñemoo képp. ci mboolem àdduna bi. ci mboolem àdduna bi. te du doon wax jëf lay doon. te wax nag jëf lay doon. mooy wax naa ci weex jarul ci ñuul ci ñuul jarul ci lu may ci ragal yàlla. yàlla deme naa yàlla deme na réer gi nekkoon ci jaahiliyat yi réer gi nekkoon ci jaahiliyat yi di puukaroo ay baaw ci juddu di puukaroo ay baaw ci juddu yéen ñëpp ci aadama ngeen taxe ko yéen ñëpp yéen a ngi taxoo ci aadama aadama ngi taxe ko ci suuf si aadama mu ngi taxee ko ci suuf si ngeen taxaw ci ba suuf man de gën moromam ci ba suuf naka moom ci ba suuf man de gën moromam ci ba suufam ci moom ñaar rek nag ñaari yëpp moom li ñu ci wax ne moo fi nekk ku gëm yàlla ragal yàlla ku gëm yàlla ragal yàlla wala ku weddi yàlla du mooy yàlla wala ku weddi yàlla du mooy yàlla ku jëkk ci mooy ku baax ku mujj ci mooy ku bon ku njëkk ci mooy ku baax ku mujj ci mooy ku bon waaye du nit ci der waaye dawul nag ci bon du nit ci derab dawul ci derab du nit ci askan yi dawul ci askan yi du nit ci làkk dawul ci làkk du nit ci réew dawul ci réew du nit ci dara dawul ci dara ñëpp a yam képp ni dañuy ñëpp a yam képp ni ci dañuy jartu ni dañuy jartu ni ngeen xam nit ñëpp noonu lañ mel nit ñëpp a ngi mel ni dañuy jartu ku gën sa morom gannaaw ga nag képp ku gën sa morom gannaaw gi nag yaa ngi ko gënee ci ragal yàlla yaa ngi ko gënee ci gën koo ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci arab la bokk ci arab la bokk ci Quraysh la bokk ci Quraysh la bokk ci Bani Haasim la bokk ci Bani Haasim la bokk waaye büyük bir camialara iltifatı yöneldi. ci jaamu yàlla ni ci xeetu yonent ci boobu ñuy wax. ci bani haasim googu la la fàqee ko. ci bani haasim googu la fàqee ko. Abu Lahab. Abu Lahab. ak Abdullahi. ak Abdullahi. ñoo bokk ndey baay. ñoo bokk benn ndey ak benn baay. Abdullahi jur yonent bi. Abdullahi moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xeet bi yëpp Abu Lahab ci gën a texee di. xeet bi yëpp Abdullahi moo ci gën a texee di. moom la alquran rëbb di ko xas xas waxal dañ koy jàng ba mu ñëwal bu tuba. kooku la alquran koy rëbb di ko xas xas loo xam ne dañ koy daanu di ko jël. rëbb rëbb ko mu hopp hopp joo xam ne. rëbb ko mu hopp hopp joo xam ne. dee na ca néegam. dee na ci néegam. ay doomam sax di ko daw bañ koo suul. ay doomam di ko daw ngir rëbb bi bañ koo suul. ñëpp di bantu ne dem ma. ñëpp di bantu ne ñëppee ngir kër gi ñu xëy. ñëpp di ñaawal doomam yi. ñëpp nag di ñaawal doomam yi. seen do seen bàyyi dee ay suul ko sax mu. te bàyyi ñoom seen bàyyi dee ay suuf ba sax mënuñu wan ko ay bàjj کام کچھ کام روز بابل میڈم بتا دیجیے

Abdoulaye kooku ñuy wax Abdul Mutalib moo ko jur. mu bokk ak Abdoulaye Ndeye ak Baye. mu bokk ak Abdoulaye mu jur ñu ne sallallahu alayhi wa sallam benn ndey ak benn baay. juddu bu jëriñ dara. juddu dara la jëriñ. bu fekkee juddu rek la. bu fekkee ni juddu rek la day. mën naa jëriñ lépp na am. mën naa jëriñ lépp fekk. bu koy wajjit nekkee di baax. bu soo bokk nekkee nit ñu baax. di jéem a def lu baax. waxtu mu nekk ñuy jéem a def lu baax. jublu ci lu baax. la def yow doom bi ci lu baax. waaw seen yoon di def lu baax naka ñoom. ndax ci yoonu wàcc lu baax yooyu di def lu baax ni ñoom. parce que daa wax du foo xam ne sax ñoom mënuñ ko woon a àgg. kon yow kay dana daaw a àgg yow doom bi foo xam ne wàcc bi daawuñ ko woon a àgg. loolu de wàccit mën na ko jëriñ. loolu. wàcc moom mën na ko jëriñ. waaye bu wàcc yi te jublu penku nga jublu xar mu. waaye nag bu wàcc yi dina jublu penku yow nga ne ko penku laa jëm. Baye di yeboo di Ibrahima. di yeboo Baye di Ibrahima. di yeboo di Mouhamed Muhammad. bu yeboo di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu yeboo di Cheikh Ahmad Tidiane. bu yeboo di Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. di jëriñ doom ja dara. di jëriñ doom dara. Ibrahima moo jur yahuud ak nasaraan. Ibrahima moo jur yahuud ak nasaraan. Muhammad jurul góor. Muhammad jurul góor. jurul góor. waaye bani Haasim yi nga xam ne ñoo ko jur. waaye bani Haasim bi nga xam ne ñoo ko jur. te su jege ñaale doon jëriñ ñooy gën. su jege doon jëriñ war a jëriñ. waa ji yëf jooju ma doon tudd ci la bokk. waa ji yëf jooju bàyyi doon tudd tànk ci la bokk. Salmaan al-Faarisi wax na ko bés ne. Salmaan al-Faarisi wax na ko bés ne ko. sant naa yàlla bi mbir mi newut ci sa loxo. yow yónneen sëriñ maa ngi sant yàlla. mbir mi nekkul ci sa loxo. dëgg dëgg dinaa ci sa loxo. dëgg dëgg mbir mi nga xam ne bu nekkoon ci sa loxo. nga gënal abi talib ci man. kon da nga gënal abi talib nii di sa mbokk ci man nii di sa xarit. ak abi lahab. abi lahab. ak bani hasim. ak bani hasim. ak quraysi ci seen bopp sa gëño bi. ak quraysi ci sa bopp ci nga xam ne ñooy sa gëño bi. waaye gëtt gu xeeñ gi nga indi ci àddina. waaye gëtt gu xeeñ gi nga indi yow yéen ci biir ci àddina bi ñu nekk. ñëpp di fa bantu. ñëpp di bantu neexaayu gëtt googu. Por eso está mbir mii bu fekkoon ne ci loxo jibril la nekk. Haaroot ak Maaroot ñu yàlla tudd ci alquran. Haaroot ak Maaroot ci yàlla tudd ci alquran. ñu xalak leen ñu nekk ci gën jëkkati mbugal. ñu xalak leen ñu nekk ci gën jëkkati mbugal. su jibril moo woon mbir mi def li du demee noonu. su jibril moo woon mbir mi nga xam ne kon du demee nii. ñu ay malaaka lañu woon mbokki jibril lañu woon. ñooñu ay malaaka lañu mbokki jibril lañu. ñu nekkoon ci loxol Muhammad. suñ nekkoon ci loxoom ñu xam ne fit Abu Talib Abu Lahab biñ demee niñ demee Abu Talib ak Abu Lahab biñ demee nañ demee woon su nekkoon ci loxoom malakul mawti suñ nekkoon ci loxoom malakul mawti kon siddaat ñi gënoon a dëgër ci mbindeef yi. kon ci gaat ñi nga xam ne mbindeef yi yàlla yëpp moo ci gënoon a dëgër. xaw a niru malakul mawti. xaw a niru malakul mawti. kon du xees ni mu xeesee. kon kooka du yées ni mu yéesee. su nekkoon nekkoon ci loxol Mikaayil. su nekkoon ci loxol Mikaayil. kon sa saytaane yi duñ xees. kon saytaane yi duñ yées. Iblis du xees. kon Iblis du yées. nit ñi ci loxo yàlla la nekk. dëgg dëgg nit ñi. ci loxoom yàlla lan la alhamdulilah yàlla am na xalifa yonentu mooy xalifaam bi gën a mag yàlla am na xalifa yonent bi mooy xalifaam bi gën a mag xalifaam boobu gën a mag xalifaam boobu nga xam ne moo gën a mag ci meloo meloo meloo yàlla kon ci meloo meloo yàlla meloo meloo meloo yàlla meloo yan xam ne moom la meloo muy meloo yàlla amul mbokk amul askan meloo amul mbokk xamu askan. biñ nekk nit kese nag naka nit ñi. biñ nekk nit kese nag nit ñi. ñëpp bëgg rek ñoo jëriñu waaye mbokkam yooyu lañ leen bëgg bëgg seet dafa dinañ ñoom bañ ko bëgg. ñu ko bëgg rek ñooy jëriñu waaye mbokkam ña ko bonut. jëriñu wuñ. jëriñu ci moom dara. moo tax toujours dana wax murid. loolu moo tax toujours et toujours bàyyi boo wax murid. murid dana bëgg lool sëriñam bëgg ko. waxtu wu nekk mi ngay bëgg sëriñ bi bëgg waaye mu bëgg sëriñam rek koy jëriñ ma. waaye nag yow murit nga bëgg sa sëriñ. loolu dong moo lay jëriñ. mbëggeel ak ku mag ci du jëriñ mukk mbëggeel mooy jëriñ. bàyyi ne mbëggeel ak ku mag ci du jëriñ mukk mbëggeel ak ku ndaw ki mooy jëriñ dëgg mbëggeel ak ku mag bu fekkoon ne mooy jëriñ ñëpp dana jëriñu wuutu yàlla ci mbindeef yi doo bañ kenn da nga bëgg ndax kii kuutalam yàlla ci mbindeefam yi kooka du bañ kenn waaye ñi ko bëgg rek ay jëriñ ñi ko bañ a dañu xaaral waaye ñi ko bëgg nag ñoo yooy jëriñ ci moom ñi ko bañ ñëpp xana ko rek mbëggeel ak ku ndaw mbëggeel ak ku ndaw ci ku mag ci ku mag ñu ngi mel sa boo dalalee jaas yi bàyyi ñu ngi mel ni puso boo dendalee jaasi. ndax cee daal di tax rek. xam nga puso bu nga xam ne nekk na la boo mu xëcc ko mu tax la ku ndaw gi gaaw a jëriñoo ci mbëgg. noonu la ku ndaw ci gaaw a jëriñoo ci ku mag. mbëggeel ak ku mag nag du jëriñ. mbëggeel ak ku mag nag doon du jëkki la wax boobu loolu la mooy lenn mag mag mi nga xam ne mooy wax ne su ma bëgg nekk di yow day mag mi nga xam ne moom wax na ne képp ku ko bëgg dana nekk di yow ku mu bëgg moom mag mi nga xam ne moom ku mu bëgg nekk di yow nekk di yow te ku mu nekk di yow ngay wàll yi te képp ku mu nekk di yow yow ngay wàll yu xos foofu moom bëggee la ku mat am na fi njëriñ foofu day mbëggee la nag xam na fi njëriñ li ci des yëpp mbëggee la ku ndaw am njëriñ waaye li ci des nag teel a ku ndaw teel jëm moom mag lenn la. man taalibe gën a bëgg sëriñ bu ko bëgg. taalibe nag moo gën a bëgg sëriñam di ko bëgg di ko xool. taalibe ma ne loolu di jëriñ dara taalibe bu ko. taalibe daay ne loolu gën a jëriñ dara. taalibe bëgg sëriñ moo koy jëriñ. taalibe bëgg sëriñ moo koy jëriñ si ngay jëriñoo. ñun bëgg yonent bi moo ñu jëriñ. ñoom bëgg yonent bi. ñun xeet wi. ñun xeet wi ñun ñu bëgg yonent bi moom ñu jënd. yonent moom ñëpp la bëgg. yonent bi moom ñëpp la bëgg. daana jooy. daana jooy. maay yonent yàlla sama xeet wi sama xeet wi. di wax ne yow yàlla sama xeet wi sama xeet wi rek. loolu la ñu lay rab. su fañoon kenn du leen safara. yonent bi yonent boobu. di sol kenn du dem safara. waaye ñu ko bañ ñëpp mën nga tere ñu dem safara. waaye ñu ko bañ ñëpp baral ci ñun safara rek lañ jëm. dalee ci néegam ba mu juddoo. ñu dalee ci néeg yi juddoo nag. ñoom ñëpp ñu ci gën a bari dem nañ safara. ñoom ñëpp li ci gën a ban dem nañ safara. am na fukki baytax. am na fukki baytax. ñi ko yàlla yónni ñi ko yàlla yónni ñenanta ci dund ñeent ñoo ciy dund am sa tool abbas yooyu gëm nañ ko topp nañ am sa tool abbas ñooñu gëm nañ ko dëggal nañ ko topp nañu ko texe nañ seen ngir te texe naa ba léegi yàlla ngeen di yëg ñooñu texe nañu seen ngir te texe nañu wallaahi ñu di texe ña ko wetti ña ko wetti xoona sa bokk ci néeg de Abou Lahab Abu Lahab jaxeeti na ngir tam jaxeeti na jaxeeti na ngir tam lépp jaxeeti Abu Lahab sax kenn du ko gis. dara lu bokk ci Abu Lahab sax kenn gisatu ko. nga xam ne yonent bëggoon na ko lool. nga xam ne yonent bi day bëggoon na ko lool. ñaari doom yu góor la Abu Lahab xam. ñaari doom yu góor la Abu Lahab xam. Xotbatu ak Xotaybatu. Xotbatu ak Xotaybatu. Xotbatu yonent may ko Ruqayatu doomam. Xotbatu yonent may ko Ruqayatu doomam. Xotaybatu mu may ko Ummu Kulsum doomam. Xotaybatu mu may ko Ummu Kulsum doomam. ñu gëm yonent bi ñu am doom ya. ñu gëm yonent bi. ñoom doomam yooyu nag. seen bàyyi ne leen dogoo naa ak yéen ba faw. seen bàyyi ne leen gëm raw gëm ngeen Muhammad dogoo na naa ak ba faw. lu mooy ngeen dellu ci moom. lu mooy ngeen dellu ko. ngeen saaga ko. taf li ko ci kanam. taf li ko ci kanam bu tedd ba. parce que doomam yi mu leen may. parce que doomam yi mu leen may. ñu euh, fatti mbubam. fatti ay mbubam it tegal ko ca. ngeen deful loolu rek dootuma dootuma yéen. ngeen bàyyi na ngeen deful loolu. dootu mën ak yéen. ñëw weddi yonent que. kanam. taf li ko ci kanam. daf na wañee ko dellu ci ñoom daf na ba ñu koy fagle rek mu retourné rek dal ci seen kanam def leen baras ñoom ñëpp def leen jàngoro baras ñu mel ni ku ngaana ñu daal di ngaana ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu mujj ngaana ñu fase doomu yonent bi ñu fase doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne leen yonent bi nag dal leen wax ne. yal na leen yàlla xiir benn xaj ci xajam. yal na leen yàlla xiir benn xaj ci ay xajam. ñu fa seen marchandise di di di tukki saam. ñu fa nga seen marchandise di yaxantu ci saam. li ngay defi commerce. ñu ngay defi commerce bu saam. dañ doxee ba diggu guddi. ba ñu doxee ba diggu guddi jot. ñu wàcc ci aw kur. ñu wàcc ci aw kur. ñu fekk leen fa ne xanaa leen dal. ñu fekk leen fa. ñu fekk leen kur wala xale yi yéen xaaral leen bay. yii kur ay gaynde rek a fi dëkk. yii kur ay gaynde rek a fi dëkk. Abu Lahab ne ñaan ak Muhammad bi gisuma doom ji ne. Abu Lahab ne ñaanal Muhammad bi ci suma doom yi de. wallaahi wóoluwuma ko. wallaahi wóoluwuma ko. yéen ñëpp. yéen ñëpp. na ngeen dajale seen sëf yëpp war nekk sama doom. na ngeen dajale seen sëf yëpp. tegale ko suma doom yi ngeen bank ko ci biir. da ngeen tëdd ci gannaawam. ngeen tëdd ci gannaawam dina ko wattulu. ñoom ñëpp ñu defal ko loolu. ñoom ñëpp ñu defal ko lam santaane. ba guddee gaynde ñëw. ba guddi jotee gaynde di ñëw. ku nekk bu fóon la fa nga tëdd. ku nekk mu ñëw siin la fóon la fi nga tëdd. weesu la. weesu la xam sa kat. fóon keneen weesu ko. fóon keneen weesu ko. bañ ñu ci biti daj. dem wala ñu ci biti sëf yi

رقية من فجأة سجل عثمان رقية من فجأة سيدنا عثمان سجل عثمان جل تيمير أبدك تيمير أبو لهب عثمان جل تيمير أبدك تيمير أبو لهب أم كلثوم عثمان سجل بتك أم كلثوم جتن عثمان سجل يوم لبقيت يوم كان جسد جاري يوم يوم يوم يوم ñu bokk ci ñoom kenn gisatul ci ñoom dara. xalifa yàlla noonu la mel ba bëgg jëriñu ba bañ ci xeer yi kenn mënu ci dara. xalifa yàlla noonu la mel ku bëgg jëriñu ku ko bon fokk nga toro ba nga xalaatoo te kenn mënu ci dara. jëriñu ci moom nag lu jafe la. jëriñu ci moom nag bàyyi moolu jafe la. ci ñoom jamonoom. ci ñoom jamonoom. rawatina ci xeetam. rawatina ci xeetam. rawatina ci jegeñaale. rawatina ci jegeñaale déglu leen. ñu ngi fàttaliku ci guddi gi ne. ñu ngi fàttaliku ci guddi gi. yonent boobu nga xam ne. yonent boobu nga xam ne. guddoom. ak guddoom. ak yónneekoom. ak ak yónneekoom. gàddaayam. ak gàddaayam. ak dundam lépp. ak dundam lépp. ay bind la ci ñun. ay bind la ci ñun. yoo xam ne. bind yoo xam ne. waxtu wu ne war nañ di ko jàng. waxtu wu nekk war nañ ko jàng di ko seet xam-xam. yonent bi mel ni yonent bi mel sallallahu alayhi wa sallam ni mu bàyyee àddina ni mu dëddoo àddina ni mu woyofee ni yonent bi woyofee sallallahu alayhi wa sallam te mën a bi ni mu néewalee solo àddina ni mu néewalee solo àddina ni mu fatloo ci li ko yàlla yónni ni mu fatloo ci yonent bi ko yàlla xel ñu siire ci mbindeef yi jëriñu ñun siire ci bëgg mbindeef yëpp jëriñu ni mu ñamee ni mu tabee ni mu ñamee ನಿಮ್ಮೊತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಜಗ್ಗನೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಜಗ್ಗಲ್ಕುಬೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನಲ್ಲೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕುರೈಸಿ ದಿಂಗಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕುರೈಸಿ ದಿಂಗನೆ ನಪ್ಪು ನಿಂಗಿರಿಕು ಅಮುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ದಿಂದಂಗ ನ್ಯಾಮ ಏನಂತ ದಿನಮ ಕೊರೈ ಹಮುಕ್ ನಪ್ಪು ಲಾಫನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಂದಿನೋಲ ಇಂದನ್ನು ಏನಂತ ಗೋಬು lu mën a faranci waaye li yàlla bind daal ñoom kuréy yonent bi lañ ci gën a yàq waaw lu yàlla bind ñoom Quraysin yonent bi lañ ci gën a yàq. waaye ñoom rek la. waaye loolu day ci ñoom rek la xam nag. waaye bañ koy lor. waaye dañuy lor yonent boobu nag. da lor di jot daaw. da lor ci ko lor jot daaw. mu walbatiku julloog ñoom. mu dal di walbatiku nag jàkkaarloog ñoom. ne leen léegi ma xamal leen ne yàlla yónni ma lu may ma rendi leen yéen ñëpp. ne leen léegi ma wax leen lu wépp yàlla yónni huma lu muy. yéen ñëpp du ma tegu yéen lu may leen di naanal. yàlla jàppal ma Quraysh. yow yàlla jàppal ma la Quraysh. yàlla songal ma Quraysh. yow yàlla yàlla na songal Quraysh. yàlla songal ma Quraysh. yow yàlla songal ma Quraysh. songal ma Abu Jahl. Abu Jahl ibn Hisham. songal ma Abu Jahl ibn Hisham. Saybata. songal ma Saybata. Walid. songal ma Walid. Hatbata. songal ma Hatbata. Ubay ibn Khalaf. songal ma Ubay ibn Khalaf. Umayyata ibn Khalaf. صلى أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط عمارة بن الوليد عمارة بن الوليد يلا صندل مجري يو يو يلا yàlla nga songal ñi mën ñi mën ñi ñëpp rey nañ leen keroog Badar ñi ñëpp ñu nga ñu leen di kàmb ak Badar ci benn bés ci benn waxtu dañ leen rendee mu ne ñoom ñëpp nañ leen tànn ci kàmb ga bañ leen rendee ñu leen ci dana dajale ñoom ñëpp sonn leen ci sàmm bi. bi nga xamee ay fan mu dellu si ci sàmm bi. ba mu xamee ay fan yonent bi dellu si ci sàmm bi nag. Abu Jahl. fan la Abu Jahl. Atbata. Atbata. Saybata. Saybata. Walid. Walid. Ubay. Ubay. Uqbata. Uqbata. na ngeen def. yéen. lu ngeen def yéen ñi nangoo. ñun day lépp lu ñu yàlla doxaloon gis nañ ko muy dëgg. ñun day lépp lu ñu yàlla doxaloon gis nañ ko muy dëgg bu dara dëgg. mooy yéen it lam leen doxaloon. ndax yéen it la leen yàlla doxaloon nañ def. ndax fekk ngeen ko muy noonu. ndax fekk ngeen doxal ba bu noonu bu ko diwul. xamar ne ko yonent ngay wax ak nit dee ba nëb. xamar ne ko yow yonent bi. loog yow ngay wax ak nit dee ba nëb. mu ne gënu leen leen a dégg li may wax mu ne ko wallaahi gënu leen leen a dégg lii ma wax yéen ñi may waxat waaye mënuñoo tontu nag waaye nag ñoom mënuñoo tontu du tontu nit mu dëgg dellu màkka yonent bi dellu dëgg ku ci màkka ku gën a taxaa di ci àddina mooy ku yonent rey wala ku rey yonent ki gën a taxaa di ci àddina mooy soo xam ne rey nga ak yonent wala ak yonent reyal la boppam ndax yonent yàlla fa koo bind ci yërmande ndax yonent yàlla daf koo bind ci yërmande jéggi ga nit di jéggi daayo ba maatan koo rey jéggi gi nit di jéggi daayo bi yonent bi xam xalab lépp ci yow di la rey dana fekk rek muy koo xam ne moo gën a taxaa di ci àdduna dana fekk kookale mooy ci gën a taxaa di ci mbooleem àdduna jéggi ga nit di jéggi daayo itam ba yaat na rey yonent bi yàlla noonu jéggi gi nit ci jéggi daayo ba xatt na rey yonent yàlla noonu ma ñu dugg ci gàmmu gi léegi nag nañ dugg nag léegi ci gàmmu gi danañu yokk gëm yàlla danañu yokkaat gëm yàlla nit ñi ko alquran doyalee ñi nga xam ne noonu la ñu ko alquran doyalee na ne yonent bi wax na ne yonent bi dinaa la nett li dinaa lay nett li ci say yonent yi la jëkkoon ci say yonent yi nga xam ne ñoo la njëkkoon ndax loolu dinaa ci dëgëral sa xol ndax loolu nett li googu dinaa ci dëgëral sa xol bu fekkee ni bàyyi ne bu fekkee ni. nettali mën naa dëgëral xolob yonent ci gëm yàlla. nettali googu mën naa dëgëral xolob yonent bi ci gëm yàlla. kon ñu nettali ñu ñu itam. kon taw nit bu ñu nettali yonent boobu. ci gën a mat mbindeefi yàlla yi. nga xam ne moo gën a mat moo leen mbindeefi yàlla yi. loolu dana yàq suñu gëm yàlla. kon taw loolu ñun dana yàq suñu gëm yàlla. kon na ngeen di déglu li ñuy nettali ci yonent bi. kon nag bàyyi nee ngeen déglu li ñuy nettali ci yonent bi. yeneen déglu taggam yi. yeneen déglu taggam yu rafet yi. ñu leen fàttaliku. yaa leen fàttaliku it. yonent bu tedd booba. yonent bu tedd boobu. nga xam ne ku ne tey na la gis sa bopp. nga xam ne ku ne. yooyu melo ci sa bopp. nit ku nekk yàlla nga ko bind ci melaw Muhammad. ndax nit ku ne yàlla la bind ci melaw Muhammad. di leen julli ci moom. doo leen julli ci moom. yàlla fay julli ci moom moom malaayika yi. ndax yàlla day julli ci moom moo ci malaakaam. sant nañu ñu ne nañu julli ci moom. sant nañu ne nañu julli ci moom. ku gën a texe ci jaam yi moo ci gën a bëri julli ci yonent. ci gën a texe ci jaam yi mooy ci gën a bëri lu muy julli ci yonent bi. ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ci gën a bëri julli ci yonent bi. ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ku gën a bari julli ci yeneen ci bi. yeneen dund la seen xaral ci tudd tudd yeneen. yeneen dund la seen xaral ci tudd yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam. yeneen dëkk ci fàttaliku waa ji barke jooju. yeneen dëkk ci fàttaliku waa ji barke jooju bàyyi di leen wax. nga xam ne ak dikkam diggéen nañu waa dinaa wax. nga xam ne waa jooju ak dikkam diggéen nañu fi àddina fi àllaaxira. yeneen ñaan seen soxla ci diggante boobu itam. yeneen ñaan seen soxla itam ci diggante boobu. guddi gi. ndax guddi gi. guddi nangu ñaan la. guddi nangu ñaan la. la. barab bi barabu nangu ñaan la. barab bi barabam nangu ñaan la. ndaje mi ndaje mi nangu. ndaje mi. ndegam nangu ñaan la su ñu tuddee yonent barke di wàcc itam bari waxtu nangu ñaan la bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke di wàcc woowale waxtu yi waxtu nangu ñaan la yonent na ndax yonent bi wax nanu seen borom seen borom am na ay waxtu am na ay waxtu yoo xam ne da cay bëbbal ay mayam yoo xam ne da cay bëbbal ay mayam gaarlu leen waxtu yooyu waxtu yooyu nag da ngeen koy gaarlu guddi gi ñu ne jotaay bi ñu nekk ba muy tas bàyyi ne guddi gi ñu ne ci jotaay bii ñu nekk ci ba muy tasee. ci waxtu yooyu la bokk. ci waxtu yooyu ñu mën tudd la ci la bokk. ci lu gër. ci lu yëpp nag. kon nag ku nekk mën na fee jëlee lu koy jëriñ. kon nag ku nekk mën nga fee jëlee lu lay jëriñ. def ak yow. lu nit doon nelaw kon. lu nit doon nelawoo tey. wala ngay waxtaan waxtaan àddina. wala ngay wax wax àddina. nga déglu li ñuy wax ci yonent bi. nga déglu li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yooyu del bari julli ci yonent bi. del bari nit di julli ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. yéen ñaan sa yaaju ndemam nga yaaju ñoom ñaan sa waajo ngeen xam nga haajo te jaam ñëppoo haajo defe naa kenn ci ñun ñëpput haajo defe na ne kenn ci ñun ñëpput haajo jël ñaanal say mbokk jël ñaanal say bopp ñaanal say wajur ñaanalal say wajur ñaanal sa réew ñaanalal sa réew ñaanal mboolem jullit yi ñaanalal mboolem jullit yi ñaanal mboolem li yàlla bind ñaanalal mboolem li yàlla bind ñaan na mu gën a yaayoo rek gën a nangu ñaan noo ko gën a yaayoo noonu lañ gën a nangoo boo dugalee ñëpp rek yàlla nangu sa ñaan boo dugalee ñëpp yàlla daal di nangu sa ñaan bul def ñu def ba doon wax yonent bi naa bul def yow ñu def bi nga xam ne doon la wax yonent bi ne ko yàlla yàlla ma yërëm maag Muhammad te bul yërëm keneen yow yàlla yàlla ma yërëm maag Muhammad te bu ci boole keneen mu ne ko waa ji xatal ngan ku yaa yonent bi ne ko waa ji yaa xatal ku yaa muy yàlla yàlla mën nañu mën na laa yërëm yaag Muhammad mën naa yërëm ñëpp yàlla mën na laa yërëm yaag Muhammad yërëm ñëpp te du ko wàññi dara. yal nañu yàlla yërëm. yal nañu yàlla yërëm yaa rabbi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. mboolem ku fi teew. mboolem ku teew. ak ku fi bëgg a teew. ak ku bëgg a teew. ak mboolem jullit yëpp. ak mboolem jullit yëpp. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. waaye jërëjëf. jàngale am ci yéen jàngale am ci yéen jullit. yonent yi mboolem yonent yi day bu ñuy yéeg yéeg kenn yéeg ci yéeg ñoom ñu yéegal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa samaan ximal asamaan boob maa taawalat haa ba tutante wutal moom ak asamaan asamaan kon nag xéemal asamaan si nga xam ne amul fenn asamaan soo xam ne dana jéem a tutanteeg moom lu soo asamaan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla bëggee bind mbindeef yi yàlla ak nekkoon dara nekk seen moom lu kenn xamut ci jamono ndax booba jamono amut ba nga xamee bëgg naa amal leneen mu takk ci leeram leer ak jëmmam nekk ko ne na nekkal di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola nekk di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di jaamu yàlla jiit bu yàgg lu ëpp juróom fukki junne at waaye nattale rek ne booba at xamagut ne balaa at am bis am ak guddi ak weer ak at yooyu yëpp booba amul te ba nga xamee ne bëgg naa man bi nag mu bind mbindeef yi géej gi la jëkk a bind géej gi ba yàlla bëggee aman mbindeef yi dafa takk seetu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent jàkkaarloo boppam ca seetu wa ba gis melaw rafet yi ko yàlla bindee ak taar bi ko xott mu mu xara ñooñ yàlla suñ gisee may yàlla ci seen bopp rek mu am carfa ci yàlla may yu bëri ko may ba ñaq ñaq woo ci la yàlla bind géej gi de moo tax lépp lu yàlla sàkk géej ci ëpp de ba nga xam géej gi nekk na ñu ba nga xam ne tey soob na yàlla ba yàlla bëgg a amal lim di léegi yaram yii nag nga xam ne ñoo génne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngelaw ngelaw la fuuf géej gi ba mu fuufee géej gi kurit daldi ca génn kurit mooma yàlla wowal ko bind ca suuf ngelaw loolu di sànqale xeer yi nga xam ne moo nekkoon ci suuf si te saxat génn ca saxat soo sa yàlla wax ko bind ca asamaan yàlla daal di asamaan nag def ko ñuy juróom-yaari asamaan mu walbatiku ci suuf juróom rek juróom-yaari suuf yi mi ngi tegu ci kaw géej gi rek géej mi ngi tegu ci jën wa aw jën a ko mboolem géej yëpp ci aw jën la la teer rek jën woowu aw yëkk ko xenu ci diggante ñaari bi jënam yàlla moo bëri kattan aw yëkk wi yàlla bind mu def ci diggante ñaari bi jënam rek من کیجیے بگا کرنا موڑ گانا حال بال ہے نم رہے کی دودھ ہم موٹا سے یہاں ری کر رہے ہیں gëj woo moom la yàlla wax naa ah yaa bunayya in takku misqaalu habatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawaati aw fi lardi su nekkee ci aw doj wala mu nekk ci asamaan wala mu nekk ci suuf loolu war na la ne woowu doj du doju asamaan du doju suuf de ndax yàlla tudd na ko tudd asamaan tudd suuf de nga xam ne moom doj bi dana lu bokkut ak asamaan ak suuf doj woowu ma ne moo xeenu yëkk woon waaw doj woowu nag asamaan fii nga gis mu féeteeg ñun yàlla bindu ko nii ñu koy gisee dafa xonq asamaan yi juróom-ñaar lañ waaye yii féeteeg ñun dafa xonqoon ci cosaan waaye nag doj nekk ci suuf géej gi moo moo ko moo ko suuf da moo tax waaw moo tax mu mu mel nii mu mel gulo waaye gis boo xamee waa adduna tukki na waa ba lu nekk dellu ci cosaanam asamaan si dañuy janoo moom mu xonk cur moom la yàlla wax naa cosaana la war ba sën ka tiyaani asamaan keroog dafay dellu xonk cur waaw mel ni démb démb he noonu la njindee di tegalooyee waa ci suuf asamaan yi juróom yaar tegu ci kaw suuf yi juróom yaar waa sidratul muntaha tegu waa aljanna tegu arafat waaw tegu aras nag mooy mbindeefam yàlla mi nga xam ne lépp lu yàlla bind ci ronam la nekk de ni si nga ne fii ci àdduna lépp lu fi nekk yaa ngi ci ron asamaan lu yàlla bind yëpp ñu ngi ci ron aras de am na juróom-ñaar téeméeri jinne ci suraat xaat ci suraat xaat bu nekk la ca nekk ci ci mbindeef mu ëpp mboolem mi nekk ci asamaan juróom-ñaar suñu juróom waa ak baytu maqadis bayti maamoor waa géej gi yëpp de yooyu yëpp nag yàlla leen bind rek ngir màggaay yonent yàlla Muhammad alayhi wa sallam rek ci yàlla bindee yëf yooyu yëpp ba bëgg a sañ ci àddina nag bésab dibéer muy bésab dimanche ci la yàlla sañ ci àddina de bind asamaan seeg suuf si waaw ak samp garab yi <coughs> moo tax ba tey ñuy tàmm sañ ci bésab dibéer de altine yàlla bind jant beeg weer rek ci jiw leen ñuy dox motax tax ba tey kii tukki di tàngu ci ci bisawal dina ne salaata yalla ci di jurbi wa ak bàyyi ni wa ak ja ali daganal tuur seen deret moo tax bisab salaata ñu di ko tàngu ci bisab deret moo tax kuy wa waaw nam ta salaw yu salaata la ngay tàngu de alors ba yàlla bind géej yi daganal ni di ko naan waaw moo tax muy bisab naan garab de waa alxames yàlla bind aljana ak safara te même loo aljana ragal loo safara de muy bisab ñaan yalla yàlla juma yàlla bind aadama waa ca faatu mu gis mu bind xawaa jabaram may ko ko de moo tax xaj ma di def ak sëy aadama mi nga xam ne mboolem li yàlla bind yëpp moom la ci tànn mboolem li yàlla bind yëpp aadama la ko bindal ak ci doomam asamaan ak suuf ak li ci nekk adduna ak àllaaxira lépp lu fi yàlla takk doomu aadama yi rek ñoo ko moom dañoo koy jëriñoo de ñooy jëriñoo suuf bi ñooy jëriñoo garab ñooy jëriñoo jur gi ñooy jëriñoo njaale jën ci jéeg mënu dikk ci jaww mënul ko raw waaw ndax mooy xalifa yàlla ci suuf aadama moomu nga xam nag ne moom la yàlla tànn muy xalifa yàlla ci suuf yàlla tànnewu ko dara mooy mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek mooy ci bind ci nelaw yonent yàlla Muhammad waaw doomu aadama jooju ci tudd yonent yàlla Muhammad lañ ko bind bopp bi mi ngi mel ni niim la waaw ndax ni aadama dellu la yi di niim la tànk yi deel la de koo gis muy doomu aadama rek Muhammad mu taxaw la alayhi wa sallam bi nga xamee nag ne ñoo tax yàlla bind mbindeef yi moo tax ñoom la yàlla mujj bind de moo tax bi yàlla bind yëpp yi aadama la mujj bind de moo tax yonent na sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na yëpp yëpp tànn ci aadama waaw mu dajale doomu aadama yëpp tànn ci bani kinaanata de waaw bani kinaanata itam mu tànn ci ñoom arab baña arab mu tànn ci ñoom bani kinaanata bani kinaanata mu tànn ci ñoom waaw xuraysa xuraysa mu tànn ci ñoom bani haasim banyaa fi nangu tànn ma ci ñoom de man maay li ñu tànn ma bàyyi ko ci li ñu tànn bàyyi ko ci li ñu tànn bàyyi ko ci li ma tànn te jubluwuma puukare ci loolu de maay sa ngat lépp lu aadama jiw te te loolu sama tiitar de loolu du tiitaram kat ana luy tiitaram mooy nekk gam nekk rek di jaamam yàlla de su dee jaamam yàlla waaw loolu mooy tiitaram ba gën a rëy waaye su nekkee di sangam bi léegi kooku kooku tiitar la bu waaye daal day lim nekkam gi mu nekk di jaamam yàlla de yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla may aadama di ko may yàlla def aadama muy xalifaam ci suuf digal malaaka yi di ko sujjóotal mboolem malaaka yëpp sujjóotal nañu aadama iblis bañ iblis mi bañ jaamu na yàlla foo nat ko sabre ci suuf jaamu na ko yàlla junne at nekk na bëkk néegu aljanna ñeent fukki junne ci at jihaad na juróom benn fukki junne ci at waaye def ba mu waxee ne ba yàlla ne nañ ci jootal aadama malaaka yépp nangoo ci jootal aadama moom mu bañ ne du ko ci jootal moo gën a aadama dala ko yàlla rëbbe dàq ko génne ko aljanna génne ko asamaan araamal ko asamaan ak aljanna rëbb ko moo képp ko ànd ak moom safara lañ jëm de kooku mooy ne yàlla dal di def aadama muy xalibaam di ndey yàlla def waaw di yàlla de képp ku ànd ak aadama texe képp ku ànd ak iblis daal di texe ak rek day waaw ba nga xamee ne loolu am na nag aadama wàcc na ci suuf jabaram Awa xam na ñaar fukki biit biit bu di ci ay féex lañu góor ak jigéen buñ màggee góor ga nekk ca biit bële mu may ko jabar doom ja nekk ca biit bële doom ji jigéen ja nekk ca mu may ko góor ga ca biit bële de noonu la aadama doon seen ci ay doomam wuuteeg ji ji rek booba moo taxaw taxawaayam wuuteeg askan wi ci sariyaatu ba Adama de booba yàlla bëgg na mbindee si soppatee leen ñeneen nekkuñ fi de séente nañ juddante ba nga xam ne Adama teewut lu mooy gis na ci doxam ak ci sëtam téeméeri dina de ñoo xam ne ñoo dundal suuf de Adama waaw soo ko dee de yàlla ji Adama ji fu mu taxaw rek malaaka yi rang ci gannaawam rek waa xaw di ko si jootal de mu ne yàlla lu tax malaaka yi fu ma taxaw rek ñu ngi taxaw ci sama gannaaw mu ne ko leeral yonent yàlla Muhammad bi nga xam moo tax ma bind la moo tax ma bind lépp lu ma moom lañ gis ci yow rek moo tax ñu topp la de mu ne yàlla def ko ci sama kanam ndax ñu jub malaaka yi jubloog man te bañ a nekk ci sama gannaaw de yàlla defal ko nag leeral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci mu di ko gis ci baa ci yonent nga ànd ak ñeneen jëf xulafaa al arbaati waaw mënuñoo tàggoog moom de Aboubacar Omar Ousmane Ali waaw leer ak Aboubacar dal di fële ci weexu waaw sami taal Adama waaw leer ak Omar dal di ci weexu waaw baaraam di dugg de waaw Ousmane ci baaraam bi topp ci sànqaleñ bi Alioune ci sànqaleñ bi de waaw ñoom ñenant ñooñu ñooy ñenant yi waaw ñi wuutu yonent bi sallallahu alayhi mu génnee jamono de yàlla nag dañut di tànnal yonent bi ay wajur dara ca aadama ba ci abdoulaye aminata de ba nga xamee aadama jur na doomam ji ñu wax siisa siisa leer ga daal di taxaw ci aadama nag nekk ci siisa de malaaka yi toppatuñu aadama nag ñu topp ci siisa yàlla wax ne yàlla aadama tawat nag ne ko li ma gisoon topp ci man waaye bu ci man gisatuma ko mu ne ko leer ak yonent yàlla muhammad bi rek moom lañ doon màggal ci yow te léegi nekkatu ci yow taxu na ci sa bopp mi ci fii sa léegi de Adama daal di woo fii sa ne ko leer gi bind ma leer gi tax bind la tax ñu bind xarata ku teew sa man la ko yàlla dénkoon léegi gis naa ne naa la ko sotti lu may ci room ak jigéen bi laatee moo tax ah, moom da nga xam ne moom lañ ko may mu def ko muy jabaram dañu di ko ay baay da ci Abdullah ak Aminata ne Abbas na ne bindal naa yéen ibnu Abbas na ne bindal naa yonent bi juróomi téeméeri ndaw juróomi téeméeri baay diggante Adama ah, de waaye gisuma fi benn ñeefar ah, ah, xamut kenn fa xam nag ne waaw leer ak yonent bi ma faa ko fi ci lu sëy de waaw ci sëy rek na mas di guddi waaw dañu génn ci diggante Abdoulaye Aminata ba Abdoulaye na tee waxambaane mel ni jant bu fenk waaw ci Quraysh de jigéen jum romb rek nga di ko sàkku de waaw romb na jigéen ñi Faatimatul Xasam yëtu te jàngoon na téere yu jëkk mu ne ko Abdoulaye daaruñ ci sama kaw booloog man benn yoon rek ma jox la téeméeri kirim de mu ne ko su fekkee lu haram la waaw man du ma def lu haram de ma ko gënal su fekkee sëy la nag waaw tey nekkul suñu diggante de waaw daal di dem ne bàyyam nag ma wutal jabar man fu ma toog rek jigéen ñi di ma sàkku de waaw mu daal di dem nag takkal ko aminatu mu sëyeeg moom waaw mu daal di ëmb yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam abdoulaye rob waar jigéen jëfet ne ko ndax ba tooma wax la ma waxoon bu njëkk mu ne ko man du ma jigéen di caaxaan walaay damaa gisoon ci yow leer boo xam ne rek waaw waaw sama bopp rek laa ko xëy na naa la booloo ak man leer ga nag gis naa ne ko ci man du ma jigéen di fekk na téeméeri gëlëm yooyu nga xam ne waaw ndaw si noonu na dana ko neexale Abdoulaye moom lañ jote woon Abdoulaye ba muy xalal de Abdul Mutalib zam-zam te bare nga gis mu nekk ca masjidul haram yàlla boo xam ne jibi la ko fa gasoon ci jamono Ismaayila doomu yonent yàlla Ibrahima ba nga xamee ne mar na ba mar ba du ko rey ndeyam Haajara daw ba waaw di séentu ndox bi du dara mu daw dem marwa séentu gisu dara mu daw ca diggante ba juróom-ñaari yoon waaw gisu dara mu soog a def si nag toog di ne daal mi ngi xaar rek doomam waaw dee ñëw jël ci ko rek tey day moo tax ba ba léegi faaj nag foog nga daw diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon yooyu nga xam ne waaw nday Ismaayla dawoon na ko def pour di ko wutal ndox naa ko def nag jibi ñëw tëddaa zam-zam dal di bënn waaw daal di fekk ci nag ba bëgg a maasale makare ñu ne ñëw naa ko zam zam zam zam zam dalal dalal dalal de nekk ko noonu ba mu nekk ja teen ba noonu waaye ci kaw la nekk teen waaye ca suuf ga géej la boo xam ne ron na makka yëpp waaw kenn mësu ko wecc de de waaw moom sam-sam boobu nekk fa di moomee arab yi waaw ba ci fan yi juróom yi waaw seen xare yi doon xare an ñu fakk ñu ragal seen noonu ñu not leen jël sam ñu fakk sam ak yi ne woon ci saaba bi yëpp ci wuru waaw ak ak dall waaw yëpp ñu fab waaw dugal ko ci sam-sam fakk sam-sam la génn nag gannaaw ga ci daal dellu see Makka ba tawax Makka ba jub Abdul Moutalib dégg leen ya. Abdul Moutalib moomu nelaw jëmi bés ba mu nelawee jëmi bés jéem ci dikkal ko na ko sa borom mu ne sam-sam ci tànku ca san maam jëkk kan xamatul fu mu nekk may la sam-sam man fu may dox ba sam-sam yooyu sa mu nelawaat ñu ko sam-sam wax beneen sam-sam am na lépp gént gi di ko ko wax mu ne mu jaa man seen nekk ñu ne ko ma nga ca diggante kër xorondom nga nag wa ak ba de diggante ñetti barab yi ci la sam-sam nekk mu koy ñëw toog ma koy gis xorondom suñ tuuti baaxaan ñëw daal gis di cop kon tuuti mu seen mu seen ñu sa gis jiital aw nag di fa dàq ba jub baa ci ca barab booba nag wa waaw te dugg mu ne rek lank du dem de mu dàq dàq mu lank mu reni ko foofa feet ko ci biir fa nekk fa mu daal di ci nag tegtal yépp te da xorongam gaa ngi sabab baaxaan baa ngi ci biir saa ngi muy cappan bant ci diggante wa nag pour daj ku teen bi nag kon dina ko abdul mutalib looy def mu ne damay wut xam-xam ñu ne ko yaa dox zam-zam bi nga xam ne sànq na ca maam jëkku boo ana foo koy mën a wuti ba gis pare muy wut ba gis muy làmbatu nag ba daj pindeb sam-sam ba pind ba ko Ismaayla pinde woon rek naa ko def Quraysh daal di ko baañaare nag ne ko lu yàgg yàgg nag doo gas sam-sam nga gas sam-sam am tiitar yaa ngi koy ngeen bëggee tere sam-sam nañ dem laa yu si bu xaabu yi de ñu ne nañ dem saam laa yu si fa jaaw benn bu di dox ba digg bëccëg ñu ngi doon seet seen i mbuus kenn amul dara ci ndox ñu ne yoon wi sori na sax amuñ dara ci ndox ndox lépp jeex na te ñun ci àll cott nañ léegi daal nañ def ñu de nañ def ay bàmmeel ku dee ci ñii ñooy dund suul la ba ci mujj dee moo moo moo moo mooy dee te doomu si ko suul kan mi si moo gën aw askan wu dee ñëpp kenn suulu leen de ne waaw ku nekk gerte ba mel te di jëlee di xaar dee Abdul Mutalib ne li ñàkk bopp la góor ñu tëdd di nekk dee alors ñu kenn mësu ko yëg góor kay dafay cee jéem a jóg di ba ba ko dee di jot rek rek de dañ ne nañ ko takkal gileemam ba mu takkee gileemam ne ma war wuti ndox rek waaw gileem nga yëkkati tànkam ndox daal di balle ca roon tànk gileem nga de waaw wala nga am ndox mu sedd goy mel ni dañ koo classé kenn la gis ndox mu neexee ni moom ndox mu sedd ni moom mu naan dal ne ñëw leen naan ñëpp naan waaw ci seen mbuusle mu ne dal ni banaan sa nuyu saam ñu ne ko nu mooy yëpp de mu ne lu tax ñu ne ko yàlla ñu la jox ndox mu sedd ni ne yàlla sedd day bi ne moo la jox santam ñu gën naa ne fii la ko demal nga def sa seen ak ñu ko di wëñee ko nag ñëw nga santam kon nga def santam dal ma nag mu am doom yu góor ñëpp di waxambaane mu xawee Abu Lahab kaccoor ñoo doon wax Abu Taalib waaw Hamsatu Abbas waaw Abdoulaye waaw waaw ñoom ñu mu xawee ku sam fukki doom taxaw ci wetam la ñuy waxambaane mu tëdd nelaw nag jigéen bi ñëw ne ko Abdul Mutalib sa nitar mu yeewu ne nañ ma jëndal xaaf ci Makka man ma takk fadax de damaa géer bi ñu jëndal ko xar mi gën a rëy ci Makka mu rey ko fadaxee ba nelawee ca guddi ñu ne ko Abdul Mutalib mu xeew ne ma jëndal a rëy ci Makka nañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu rey fadaxee ba nelawee ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ li ba aw yëpp de mu ne nañ ma jëndal gëlëm gëlëm gi gën a rëy ci Makka laa ñu seet ba gis gëlëm gi gën a rëy ci Makka mu jënd ko rey fadaxee bam ne la waatee ñu ne ba bur mu tamit bëgg nañ loo ko jëlem de mu ne mu jaa ana loo ko jaa dina ñu ne ko sa nisar ja nga nisaroon ne soo amee fukki doom yu góor dan ca rey kenn jaamoo ko yàlla nisar jooju la yàlla bëgg nga matal ko de mu daal di yeew nag daal di dajale doom yi nag ne leen man kat damaa jaayante woon ak yàlla ma xamee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla fàttali ma nisar ji sàkk sa wax fan yi yëpp dara léegi nag nañ jam ñeen doom fokk ma ci banta bee bi dal rek dinaa la rey de waaw dem ci seen yàlla ja daal di wantale banta ba dal Abdoulaye ci fa nga jublu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdou Moutalib ne mukk dafa juum nañu defaraat ñu defaraat mu dal Abdoulaye ñu defaraat mu dal Abdoulaye de waaw Abdou Moutalib daal di nar nag daal di jàpp Abdoulaye nag waaw daal di jëfu gogaram nag ne ma ngay dem ci ay la sa ren di Abdoulaye ci nga xam ne moom fa jublu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne damay rendi Abdoulaye ñu ne ko du fi am mukk laa fi ne de ñu joxaane ju bon dañu ko sakkal soo rendee Abdoulaye soo na ci fukki doomi góor bi gañe gañe bi rek foog mu rey ko coono ñoom ñun duñ ko nangu de waaw mu ne leen dama ko lisaroon te yàlla santaane na wax na leen akom naa ma tam lisar ci de ñu ne ko moom caag Abdou Abdoulaye daal kenn du ko fi rendi de yëpp loolu ñu ne ñu dem ñu ne nañ dem ca Muxaaba ya ñu demati ca Muxaaba ya danañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu rey sadaka ah, kan nga la ñu ne baax mu tali dugg nañ lu ëpp aw yëkk de mu ne nañ ma jëndal gëlëm gëlëm gi gën a rëy ci màkka laa ñu seet ba gis gëlëm gi gën a rëy ci màkka mu jënd ko rey sadaka dam na la waatee ñu ne baax mu tali bëgg nañ lu ëpp gëlëm de mu ne mu jaa ana lu ëpp gëlëm ci àddina ñu ne ko sa nisar ja nga nisaroon ne soo amee fukki doom yu góor da nga ca rey kenn jaamoo ko yàlla nisar jooju la yàlla bëgg nga matal ko de mu daal di nag daal di dajale nag ne leen man kat damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma xamee fukki doom danaa si rey kenn jaamoo ko yàlla nag yàlla fat ni ma ni kër gi sàkk naa fa wax dara léegi nag nañ dem ñun doom yi ma wantal leen waaw ku ci bantab tee bi dal rek dinaa la rey de waaw ñu dem ci seen yàlla ja daal di wantale bantab dee ba dal Abdoulaye ci fafa jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mukk dafa juum nañ defaraat ñu defaraat mu dal Abdoulaye ñu defaraat mu dal Abdoulaye de waaw Abdul Mutalib daal di nar nag daal di jàpp Abdoulaye nag waaw daal di jëfub gobaram nag ne ma ngay dem ca sax ak na ay lata ma leen di Abdoulaye ci nga xam ne moo fa jub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi de kuréel yëpp dog yow daanu ci kawam ne ko looy def mu ne damay rendi Abdoulaye mu ne ko du fi am mukk laa dina de nga joxaare ju bon doo ñu ko sakkal soo rendee Abdoulaye koo ma ci fukki doomi góor gi a rek foog mu rey ca coono moom ñun duñu ko nangu de waaw mu ne leen dama ko lifaroon te yàlla santaan na wax na ko naa ko naa ma ko lifar bi de dina ko moom kaag Abdou Abdoulaye daal kenn du ko fi rendi de ñëpp loolu ñu ne nañu def ñu ne nañ dem jëmu xaaba ya ñu demati jëmu xaaba ne leen ne ko nga rafet sa doom bi nga xam ne la banta bee bi daal nga dendale ko fa nga war a dalee ko jëlem bi su bant bi dalee jëlem bi nga rey jëlem bi su bant bi dalee doom bi nga yokk jëlem bi waaw bu bant bi dalee jëlem bi waaw nga rey jëlem bi su dalee doom bi nga yokk jëlem bi ba ba bant bi taxaw ci doom bi dem ci jëlem ya nga xam ne loolu la yàlla nangu muy nekk sa njaboot doom de mu daal di ñëw nag daal di taxawal Abdoulaye taxawal jënd jëlem wante ne bant ba dal Abdoulaye mu fekk fukki jëlem bant ba dal Abdoulaye mu fekk fukki jëlem bant ba dal Abdoulaye mu def ko muy téeméeri jëlem bant ba dal téeméeri jëlem bàyyi Abdoulaye waaw su doxee ci wéeru gëlëm ye dafa xelal na waaw loolu mooy dafa ga Abdoulaye de waaw moo tax ba sariatu yonent bi nga bi ba borom sariat yi ku rey nit ci xeetu yonent bi ci wéeru gëlëm la war a joxe de ak moo tax ndaw sa ndaw si nga xam ne dafa yaa bopp da ko ànd da ko Abdoulaye rombo mu ne ko ñëwal sëy man benn yoon rek ma jox la téeméeri jërëm dañ la jotoon de waaw mu ne ko man du ma def yaaraam sa sëy ne ci diggante de loolu moo wane ne Abdoulaye ci diine ji yëpp ne kon de ndax booba sariante amagul waaye def nañ moom du def yaaraam de waaw nag ko def nag mu sëy ak ab mu sëy ak Aminata nag dal di moom bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa si seen ci xambam saa si seen ci wasi nañu moo am na tuuti juddu yonent yi saa bi ñu seen ci nampam ak ñu seen ci ak màggam ak ci ndawam dañuy jabar ci Xadijatu bintu Xuwaylid waaw benn naam ñeneen si teer ba yàlla yónni ko ñu ngi jëm ci yàlla waaw waaw dana fukki at di ko nëbb waaw waaw ñetti at di ko nëbb def ko fukki at nag def mois de juillet muy fukki at ak ñett ci Makka lépp waa Makka nangu ñu génn gàddaay nañ dem jëm Medina de ba mu demee Medina nag ñoom ñëpp ñu jaayante moom de waaw xala sam waaw diine islam nag da nga xam ne am doole waaw da nga xam ne jëppi waaw xare ñu Makka waaw ba waaw dàqaleen ci Badar dàqaleen ci Uhud dàqaleen ci Bamba waaw ci wu tey bi ba ba su Makka ñëw mu bi Makka nag waaw ñoom ñëpp ñu ñëw jébbalu mu xàtteem daal di ñëw ci mbooleelu réewi arab yooyu waaw fekk na ci xarat xanda waaw dañuy gas rek ñu war ko mënu jaay yëpp dal dara Salman dafa ñëw ne ko jox dañu daj loo xam ne war ko mënu jaay yëpp dal dara de mu daal di jàpp sotti ko jox daal di wàcc waaw daal di ne xat sa daj wax yàlla jox na ma waa Saam de waa mu ne kuy mu ne jox na ma lii Saari waa mooy Iraq de waa Fap mu ne kuy mu ne yàlla jox na ma yaman de maa ngi janoo Saam de maa ngi janoo yaman waa soo ne loolu yëpp sama xeet nañ ko moom de maa jox yi noonu sama naa lay xam de ku ragal bay gàtt waa Fap sa bopp kenn a tëj génn ba sax nga naa da nga moom mbir yi waaye nax nga sa bopp wala waa la na waaw xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoo doon Kisra ba léegi ci xaraaf nguuru islam fa nekk rek waaw ca Baxda waaw te yaman noonu nga xam ne waaw fala xaa dara yi na tonde ba nga na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñett waa diine islam di gën am doole waa saa yu nekk dem xare ñoom Badar xare ñoom Uhud waaw xare ñoom waaw Xandaq waaw koti Makka te jaatal juróom-ñett ma nag mu di Makka bu mujjee Makka mu ne waaw xare Saqif ba mu di nga dina dali sakk dem dam boobu de ma nga jëm ci tubaab nag waaw bu ko taxee de sallallahu alayhi wa sallam waaw gannaaw ba mu wàññeeku dal di nga xam ne ci la génn àdduna de ci xoppam ji génn àdduna ci la ko xare waaw jàppoo Usaamata ibnu Zaydin de waaw Zayd ibnu Haarisa ba njaa mbayaan ak yonent la woon jaamam la woon ci jaay réew mi mu goreel ko yëpp nag moo jur Usaamata ak Ummu Ayman moom it jaamam la woon de Usaamata ko waaw xare ne nañ fat xare dem dal xaaw xare jëg tubaab yi ba si ginnaaw garami ga si ginnaaw maran sa sidina Usmaan ci sidina Ali yemu ca Usaama mi nga xam ne xale la fekk lii la te Mawlaa la moom la yonent fan mooy seen général yéen ñëpp de ñu ñuy jëw nag waaw yonent yi ñu def kenn nit ko bare boo xam ne Babacar a ngi ci Omar a ngi ci muy fan xale bi de waaw na mooy jiital xale bi yonent bi ko nag daal di ci min baram de mais su fekkee ne wax ngeen ci Usaama ta waxoon ngeen ci bàyyam ci waaye maa ngi jiw ci yàlla ne Usaama ta na ak fan naka nga xam ne bàyyam xeyoon ak fan de Usaama ta xeyoon ak fan bàyyam xewoon ak sant waaw man moom laa sant daal di mu wàcc leen ba mu ko xayma waaw ñoom ñëpp ñu ñu topp ci nag mu sosoo dem Balxaaw de waaw fekk na boobu yéen a ngi topp na comme bi nga xam ne su lay génnee àddina de waaw ummu ay man day Usaama sa nag moom xam na waaw xopp ji xam na ne di di mujj bu baax de mu ne Usaama sa yéen a ngi jox ma leen di dem ne génn dem waaye bul dem soo génnee dëkk bi ba ci jot yi rek na nga tagaalu boobu de parce que yéen a ngi ji ma gis ci góor yi bànneex yi gannaaw xam seen rapport yi nga xam ne ñoom duñ ko jëm dee loolu bu jóg ci waxam bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa ba di génn àdduna ba mu génnee àdduna nag Aboubacar daal di nekk xalifaam Omar ma nag Abou soxla na gis naa Ousmane soxla na Ali day xulafaa wala baa fi kenn mënatu jee dem xare nag waaw ndax bi mu def gis naa Aboubacar di yan bi nga xam ne moom la yanu de loolu la yoroon tax si nag waaw dal di def xare ba ñu ne si ginnaaw Abubakar xanaa xare bi dañuy wàññeeku wala yonent bi génn na àdduna mu ne xare bi yonent takk takk drapeau am tebal leen nan Babacar na xeddi ko du ma ko def mukk la àdduna ci jikko yi doon ñëw waaw di dugg ci kër yonent bi ñu fekk jabaram sax du ma wàññi xare boo xam ne yonent takk drapeau ba rek ñëw Usaama ko demal leen Usaama ko takk xare yooyu jëm ci réew yi tubaab ya noonu jëgg nañ la jëm di génn àdduna ñu ne moom mbir jeex na waaw foofu de bu fekkee Mouhamad yema rek sot na ñu dégg ne kat xare génn na di jaaj yëpp mu nga jëm ci réew yi tubaab ya di xare ñu ne ñu ngi defoon ne Mouhamad bu génnee àdduna mbir mi jeex na ñu ñu waaw ñu ngi tag xare ñu ne ci réew yi tubaab yi waaw ñu kenn leen laal de waaw ñu ndax noonu ñëpp daal di ragal de loolu mooy waaw kon bi ci dundu yonent yang nga xam ne dina leen ko talal léegi de ba nga xamee ne judd na ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu nguuru Kisra toje fukki ci tour ak ci rek rek ta xam ma ba ñu di mëna ca Bagdad nga ci tax ma nga fa dara ñu ko mëna jaadu na salaay tabax ba rek waaw ci lu ñu ñu ko waaw ba rek waaw jëlee ma gëm jëlee ma gëm gawaram mën nañ kaa waaw te duñu jóge mukk kaw ga. allahumma rabbi xalaala ba ci suñu doon waxoon mel ni waa ñu joo xam ne dafa xam yàlla na muy liggéeyee noonu la ñu andi liggéey dafa xam liggéeyee ba mu liggéey ci dóor yi ba mu liggéeyee ci sant yàlla ba mu sant yàlla malaaka yi ndokkee ko rek amul dara nag ci liggéey bi lu muy asamaan ndax boo déggee lu tax mu xool asamaan koo xam ne da ngaa fa soo koy te bët du xool lu duuti mukk moo tax ba yëpp te yonent ba mu juddoo xoolul lu mooy asamaan ci gën a tawee ci mideer yi nga xam ne moom la ñuy gis rek ba yonent bi juddoo nag sallallahu alayhi wa sallam ca si Abdul Mutalib moo doon wër Kaaba ga di ñaanal yàlla Aminatu pour mu wasin ci jàmm nan lu ko xam ne am na du wasin na mooy Kaaba gi yaa ngi jëm ci ndeyjoor yaa ngi jëm ci càmmooñ daal si jóot tigli di fecc moom kaaba naa wuli la Muhammad wa rabbil bayt gis nañ Muhammad gën naa ci borom léegi rek di def toj toj toj am na ñetti bëli yàlla dalu waaw di fecc rek ñu mbër de na ko def ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ali aminatu na ne ma gis aw ñiir mu ñëw tiim sama ne maa ngi dégg coow ay góor ñuy wax maanaam malaaka yi wax ni ay góor ñu daal ne képp wàcc daal di wër néeg bi de daal di ñëw wër niir bi daal ko fab ñu tàngaleen ko ñu tàng ko benn benn sarde bu sarde bu sooy bu wert ñu tàng ko ko ba dara téye ci moom ñu ne wër leen ak ma soxal gàncax wër leen ak moom géej waa ci géej de wëree na moom asamaan bi mu toll ci taw rek mu ne ñu dem ak xale ba mu ne kenn bani abdi mu dëri ak a sagal man de jiw naa leen doom joo xam ne doom ji rafet ni moom mës na juddu waaye daal tàggal nañ rek ba yóbbu nañ ko mu ne si guddi ñu dellu see moom rek sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko ñu ngi ko sànge rek ñu ngi jëm ñetti caabi ñu naa walaay Muhammad tey tey na caabi àddina yëpp de sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo ñetti darapo tànku na waa Makka yëpp ñu janoo moom benn ca tànku benn ci digg Kaaba bi benn ci sow bi rek waaw ba yéen di gis loolu waaw daa bay ci Xuraysi yëpp wax nañ ñëpp di dégg seen làkk naa gis nañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp wax nañ ko ndokkeel ba yonent di juddoo sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ xaati foo toll rek dégg baat bi wax naa gis nañ yonent yàlla Muhammad te mooy da nga way jëkk way mujj rek te juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nguuru léegu Kisra nguuru Kisra ca Baxdaad wala sa diggal sa ak ñanantu rek ku diggal ak ñanantu def ca taax ma noonu la doxee yàq ba léegi kenn dafa ko jël te taax mooma amoon na junne yàq buur bu faloo da ngay dëkk ak sa junne jawar ak sa junne taara ak sa junne bëkk nee ak sa junne ndugaande te dara mu ci jàmme ji de waaye kër ba ngeen di juddoo te ngeen da nga jëm màkka sore ko ba xam ñaari weer da nga ne taj ci tëb fukki tëb si ngeen ngeen rek ba yonent bi juddoo jala safaram Faris tey Faris nguur lañ koo xam ne safara doon seen yàlla taal nañu seen safara yépp junneyaat yépp da fay benn bés moom lañ daa jaamu ndax liñ leer ak waaye daal ba yonent bi juddoo la safara sa fay jomaj te mel ni loxo fa taawoon de dara bu waratu ngi te seen

dañu dajale ñu ñu ne li amoon jaraafam ji muy wax Abdul Masih mu ne Abdul Masih léegi damaa bëgg nga waxal ma xamkat yëpp ne leen dama am lu ma jaaxal te ma bëgg ku ma ko tontu waaw te bëgguma kenn laaj ma li ma jaaxal lan la soog maa tontu damaa bëgg rek ku ma wax li ma jaaxal ak li nga xam ne mooy tontu bi rek ñu ne ko loolu kenn mënu ko tey jaadina lu may tasiyu dafa am nga ko def mu ne am na ñu dem fekk dem sa jiw rek lu war a dem fekk sa jiw sa jiw bu xaabare woon boo xam ne gudd na fan lool gudd na yoon bi ñëwoyam lu bari daanaa ji màkk at mu nekk dañ koy yenu dañ koy taxañ lam ne nit coupé ni ba jëy mu tànkam waaw tànkam boppam rek moo ci yàq waaw ñu ko dara ci boppam ni ba jëy mu tànkam وسجد لنفسه الى الملك مسجده واحنا لهم وانا وحيد في الله لهم واحنا فايون يوم من بياج حكيمنا لهم او يوم من يوم كريم يعلم فإني خادمي في جنرير أولي بني يوم كريم يوم من سفارة كم ربيين من كم يعلم من يجي راودي هذه في كم كم يوم يقولون يوم كتب من كتب من كتب من كتب من كتب Abdulmasihu fekk fekk fekk ñu ngi xopp xoppi diraam ba xar la mu nuyu ko fayu ko mu tàggal ci xasida mu kii ñu Abdulmasihu ñu Abdulmasihu moo ñëw ala jamal masihi mi ngi war bi leen di gaaw ak bala ila fatihi ñu ngi jublu ci fatihi waqad awfa ala dari te fatihi moom mu nga xëpp bàmmeelam te ñu jaar rek ñu ko ak salaka mari tuur baasaan

nabi waaw Ibrahima ma gër waa nag li ko li nga xam ne moom la ko ci wax waaw mu ne ah ba tey su ci gërëm yonent bi jeex ci ñëw kooku ma ay ñu bëri dana ko soxla man dama ko fekkale waaw waaye ñu ko ci buuree jeexante yéen sa ñoo tali ba ci yéen sa jur de yéen sa jur de moo ci mujj ki nga xam ne jamono bi dina amat ko ba ñaari yoo doon jàpp doom di yéene indi leen jëm nga tëb la ak laxasa am nga ak lépp ñu solal ko ci waxate ibnu maalik ak mbir bi ak ba yonent waxe woon sallallahu alayhi wa sallam daf koy jéem a dab ba muy génn gàddaay rek noonu la yonent ba yonent bi juddoo naataange bi dal di waaw matale di jaas yëpp ba nga xam ne kenn jàmbat jàngate du dekkoor rek naa ko def ba yonent bi juddoo benn doom bu jigéen judduwut ci makka atam jigéen ji wësin rek góor nga juddu de guddi la yonent bi juddoo itam nit ñi seetlu ci itam dayam rek yar la ànd ak xam ne pour gën a ci makka waa moo ko wala dina dal fa de foo xam ne leer daloon na fa rek saaba génn na fa rek ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam nampal ko nag yaayam nampal na fa ay fan yonent ku bëgg arfaan la woon nanguwut gaab waaye nangu na arfaan aminatu aji wóolu lay firi ba ko yaayam nampalee te tudd aminatu ci la arfaane am na ji ci firi kóllëre gannaaw ko sooy ba tu nampal na ko sooy ba tu yàlla abu lahab la woon de boo xam ne ba yonent yi juddu fekk na ko ba yonent yi juddoo rek mu daw ñëw si ci abu lahab ne ko ay ana ñu duma si na mu ne ko lu ma am mu ne ko doom ju góor mu ne ko banaa la yàlla de ngir kontaan moom abu lahab moom abu lahab moom nga xam ne kii du dund yëpp loolu yonent ak xeex ak moom ak yéema yàqam gi dem mooy liggéeyam gis nañ ko ci àllaaxira ci nit ma gën a ñaaw waaye na ne guddi àdduna bu nekk yàlla dana ko génne ci safara waaw mu nekk ci noflaay ba guddi àdduna gi wéy ndax dëgg dëggoon waaw ci juddu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dëgg waral waaw jaamam bi ñuy wax koy bëgg ñu ne su fekkee ni noonu ak yonent bi nga xam ne mooy maanaam ci gën a màgg ak lim ko lor yëpp dee ci kéefër dëggum dëgg ci gàmmoo juddu yonent bi moo ko may guddi gàmm gu nekk ñu génne ko ci mbugal loo xam ci mbiram boog guddi boo xam ne moom gëm na yàlla gëm na yonent waaw bég ci guddi gi rek wa yàlla mën na ko jàmmari waaw lu bëri de sooy batu moom itam nampal na yonent yonent tarit ci sawaabu ji ci li waral yàlla de gannaaw ga alimatu ñëw alimatu saariya ñëw nampal ci ko de moom it waaw mu tawee ji yéen mu ji firi askan mu sell ak yéen mu ji firi lewet alimatu saadiya taayif la dëkk makka dëkk la boo xam ne dëkk bu tàng la te day ay ak ropp ba ñi ba am doole ñëpp suñ ko jaamaa doom da koy yóbbu taayif nàmbal lu ko fa waaw di fay ñu la ko nàmbalal foofa ba nga xamee ne loolu nekk na aada ba waa Taayif bët bu set dañuy ñëw Makka di wër di ay doom yu juddu ñu ñëw ñu jël leen bu yóbbu nampal leen de keroog ba yonent bi juddoo fukki jigéen war nañ Taayif ñëw Makka di wut doom yi nampal de bañ agsee ñoom ñëpp jaar nañ ci Aminatu mu ne man day maa ngeeg doom waaye daal doom baayam dee ñun ba mu toll ci ñaari weer ci biiram ndeyam day booba la baayam dee ah ñu ne ñun de foofu ñu jooju doom ñun baayam ji fi moom lañ bëgg def dañ ko nampalee baayam di ñu fay waaye di ñu buñaade waaye doom yo xam ne baayam dee na bu ko nampal soo amee sa pay sa pay rek nga am de ñëpp bañ li nant bi sallallahu alayhi wa sallam jël yeneen doom yi juróom ñeent ñi àndoon ak alimatu saat yooyu yëpp ku ci ne jël doom alima bi itam ñu daal rus naa ànd ak i moromam ñoom ñëpp ku ne yóbbu doom yoonam dal bu mu yóbbu dara rek day rey dafay nangu doom ji daal xanaa moo gën a alam neen de daal di ñëw ne aminatu sa doom ji nga di gën a am nga doom mu ne ko waaw doom yuñ dal la de ndax daal baayam dafa dee mu ne ko jox ma ko mu ne ko demoon ma ngi ne ba di nelaw alimatu ñëw

mu walbati jox ko benn jamono yonent bi de mu nampal nampal mu bañ mu ngay jàngale maanu xaar sallallahu alayhi wa sallam hmm, boole lu ne ñaari doom la amee di leen kon bi mu nampee moom wenn wi wi ci des moroom maa ko moom de moo tax waaw mu bañ ko namp de sallallahu alayhi wa sallam na la ko def alimatu dal di dal di lal wala mbaam mbaam wajanu mbaam sax wu lapp moom la waroon ba mën da jafe moo tax ñu jël doom yi am bàyyi mu soog a agsi gëlëm ji dal di suuru suuru suuru ci taxawaay te raw xel xenaat bi dal di réew ba nga xam ne ñu xam ne xenaat yi soow bi ñu dal di rek ñu ñu mu génneem naa ko def alimatu dal di bi sallallahu alayhi wa sallam gëlëm nga cal jëy dem jot gëlëm yi nga xam ne rawa nañ ko dañ ci dundee lépp ñu naa ko kaafee alimatu yow ci suba laa jotee ci ngoon kenn mën laa jot mu ne man day mbindee nii ma amee ni ma yàlla jot loo daal mooy <laughs> mbindee mu barke la rek ñu ko te yaa ngi xeeñ njëtt goo ne kenn mën sa xeeñ ni gu ni mel de fekk xasar yonent bi la sallallahu alayhi wa ak see taayif rek taayif yëpp naa ana ko tur gëstu gi ko def alimatu gëlëmam nga dem jaxasoo gëlëmi ci def ñoom ñëpp ñu suur ñoom ñëpp ñu am soow de boo rat rek mu génne soow bu jurag bu jurug ñoo jëram de alimatu naa jëkkëram wallaay mbindeef ñi ma jële